asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur yu RTT TV tey ñoo ngi fii ngir fas yéene def ak ñeen émission bi nga xamante ni bis bu nekk rek ñu ñëw di ko jëlal jagleel auditeurs yi nga xamante ni ñooy déglu site bi nga xamante ni wala télé bi sax laay wax mooy RTT TV ci li nga xamante ni mooy émission làmb ah tey nag ñu jël gan goo nga xamante ni defe naa ne suñu génnee suñu image dinañ xam gan gi nga xamante ni moom lañu invité kan la RTT TV nag dafay télé boo nga xamante ni dafay dox ci yitte askan wi dafay dox ci lépp loo nga xamante ni rek luy doxal sport la rawatina nag làmb ñun nag ñu jagloo sport bi nga xamante ne mooy làmb def ko mu nekk suñu yëf ñu ñëw tey jël émission bi nga xam ne mooy wasaare làmb ñu dalal gan gu mag goo nga xamante ni dafa am lu mu bëgg yëngu li mu bëgg yëngu mooy lan mooy làmb moo tax tey ñu invité ko regroupement bi nga xamante ni mooy regroupement des tailleurs de la région de Thiès organisé nag benn gala de lutte bu mag ñu dalal ki nga xamante ne nag mooy président commission organisation ba muy mustapha saw bu nuyoo ba pare ñu dugg ak moom ci li nga xamante ni moo xew ci bis bi ci wàllu organisation ci wàllu làmb lan moo tax mu dugg ci ak luñ ci gis ba dugg ci mais loolu su nuyoo ba pare rek ñu mën a jublu ci loolu ngir waxtaane kon Moustapha ñu ngi lay nuyu waaw onze billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu bépp cees Thiessois di nuyu fidèle auditeur RTT TV. di nuyu képp kuy téere di nas puso ci cees rek wala ci Sénégal ñu ngi lay nuyu. di nuyu suñu président ñu président regroupement des téere de la région nuyu bépp organisation boo xamante ni mi ngi ci euh, téere yi rek ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Thiès gépp di nuyu tamit waa Axlu Làmb gépp. jërëjëf euh, Moustapha tey ngay ñëw fii ci télé bu mag bi nga xamante ni mun naa wax ni lii xew lépp ci sport su ma sañee ni fii lay xewee. Mhm. tey ji ngeen dëgmal bis bu rey mu nekk le 4 décembre ngeen nekk ci waaj waajtaay ñu dégg tailleur ñu bari bu njëkk bu ñu ko daan dégg ñu gis ñii di def ay défilé de mode ñii di dugg ci leneen tey ay tailleur jóg rek ni fu ñu jëbalal ñu ni ci làmb hmm. ban xalaat ngeen am wala lan moo leen inspiré ba ngeen jóg rek dugg ci làmb waaw boo gisee loolu euh, question boobu bu ñu bu ñuy sa war a tontu la. Mm-hmm. ndax euh, ginnaaw yàlla ak bi ñu defee suñu élection yi passé mm-hmm. ñu fal président boo xamante ni jeune la muy président des regroupements des traders de Thiès muy Modou Seck moom dafa bëgg sport. Mm-hmm. te làmb tam ku ne làmb wax sport. ginnaaw ñu ne dañoo wax dañuy initier bu ñu président Seck bi ñu ko mandaam bi bi mu jëlee mandat kii fonctionnement yi dafa xoon ni day initier. wut euh, def ay programme yu bees mhm. ku xam ne téyër moom euh, ci défilé de mode lañ ko xamoon mhm. mais défilé de mode dong nekk fi ndax téyër dañuy def sport mhm. te sport tam ci làmb la bokk moo taxoon bi ñu falee président Seck nag bi mu jógee moo taxoon ñu dañuy initier def làmb loolu moo ñu dugal ci làmb moo tax ñu ne dañuy tëgg làmb moo leen ci inspiré waaw mooy président mo Seck moo ñu inspiré ci làmb ak ñoom am na ñoo xamante nag ay téyër lañ mais dañoo nekk dañoo nekk waaw. Mm, am na ci biir. waaw am na ci biir bi ñu waxtaanee nag ba ba juboo nag moo tax ñu nag comme sport la te sport moom sport national la ñu ñëpp ko bokk moo taxoon ñu ne dañuy tëgg làmb waaw. ndax eh, yomb na pour tëgg làmb Mamadou Seck gis ngeen mu nekk téer mm. nekk jiite li nga xamante ni mooy. organisation ci CRG de lutte. Mhm. est ce que du maanaam li mu nekk loolu rek moo tax ngeen ni comme Momadou Seck nga fële. Mhm. xaaral ñu jóg rek dem dugg ci làmb ji. est mhm. nekk. ci làmb euh, dugg ci ñu dugg ci làmb ji mais du question que moom moo dafa nekk ci. Euh, ci bi rek parce que ci biir làmb ji tamit euh, ay sénégalais lañu te làmb ji yëfi Sénégal lañu yëfi sénégalais la ci biir làmb di dund làmb te ginnaaw organisation la ñu wax te organisation bu mag la ñu yor boo xamante ni ci biir Thiès dafa dafa yaatu mhm. kon boog bu fekkee dañoo wax làmb rek kenn ñi nga xamante ne dañoo ne ay social lañ ci làmb ci doon ay téer dañuy ñëw ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaane ko ba mun a am bis bu jag bi moo waral loolu tax d'ailleurs moo tax la ñu mën a am gala de lutte boo xamante ni buñ ko yaakaar naa ku ko tardé moom di nga tardé rëy ci biir Thiès ku ko tardé di nga tardé rëy ci biir Thiès. muy galaa lit bu rëy boobu. mais ku mel ni président Momadou dañu gis euh, làmb ji bi mu sosoo ba léegi moom sax jotam nekkul ci organisation bi. ñi taxawal combat yi di ko monte ndax am ngeen ñoo nga xamante ni miin nañu làmb. pour tànnal leen ay mbër yoo nga xamante ni bu ngeen leen tëggee public bi dinañ ñëw wala yéen tëyër yéen ko xalaatal seen bopp wala dafa am ñu nekk ci seen biir ñu xam làmb ñu koy dox wala nu mu demee noonu. waaw comme li ma waxoon sànq rek mooy xam nga euh, métier téer moom dafa yaatu mhm. te dafa yaatu ginnaaw moo tax ci biir téer maa ngi sànq am na ci ñoo xamante ni ay làmbaloog ay làmbaloog la ñu mhm. dañoo nekk ci biir doomu ay téer marga téer la ñu mais dañuy suivre làmb ginnaaw ñun suñu suñu organisation dafa dafa yaatu te dafa rëy mhm. kon suñu organisation dafa yaatu dafa rëy euh, dinañu permettre que bu ñu toogee waxtaan dafa euh, ay def nañ ci ay conférence yu bëree bëri ba ay réunions yu bëree bëri bëri moom moo tax ñu mën a décrocher combat bi combat yu ñu am kon ci biir téye da am ñoo xamante ni dañuy suivre làmb te dañoo xam làmb moo tax ñu mën a am euh, combat yu ñu am. waaw nga nekk président boobu jiite ko tëgg làmb gi maanaam ndax jafe woon na ci démarché yi nga doon démarché mbër yi. ak fii làmb tollu làmb ji ngeen taxawaloon ko Covid bi ñëw. Mm-hmm. Ah, te mu xam ni kenn ku ci ne seen alal ngeen dajale jël def ko ci. Mm-hmm. mais loolu mbaa posé wu leen woon benn problème ci lijjante gi wala stade yi ngeen ko war a tëggee. Mm-hmm. est-ce que loolu lépp ci maanaam organisé dafa yomb daal est matuwaay yëpp jël ngeen waaw xam nga organiser euh, tëgg loolu lépp lu ñuy organiser rek yombut mais boo ci defee yitte rek yàlla mhm. jàppale ci ndax lii tam dañ cee def yitte moo tax mu mu yegsi fii mu yegsi di ñaan yàlla nag yàlla ñu àggale ko ak jàmm ak salaam boo xoolee ni comme regroupement des traiteurs de yàgg nañu organiser parce que am nañu organisation bu dynamique mhm. ba pare ñun bi bi ne ñi ne ñi ne ci biir euh, regroupement bi tamit dañoo dañoo dynamique. Mhm. kon euh, moo tax bu ñuy bu ñu organiser làmb euh, lu mu jafe-jafe jafe du tee dañu mën a atteindre suñu objectif. maanaam ay làmb logo ci ne comme ni nga ko waxee. moo tax yow mi nga xamante ni même boo ci ñëwee ñoo lay wan yoon bi. tey li nga soxla woo ci làmb ñoom ñoo la koy wax fi nga war a jaar ñu ko mais jafe na wala jafewul non jafe woon na au début mais pour l'instant nii jafeetul parce euh, nekk rek ko euh, boo ko nekkee bu ñu ko tegee ci yoon rek kenn ku nekk bu ñu ko jël euh, bu ñu ko bu ñu ko tegee ba saytu ko ba ko ba teg ko kenn ci la ci moom day daal di yomb mais bu ñu ko bu ñu fekkee ko jël jox ko kenn rek day daal di metti moo tax kenn ku nekk ci regroupement bi da nga am benn pàcc boo xamante ci ngay nekk di organiser la nga war a organiser ñi war a saytu làmb mbëri ñi ngi saytu mbëri ñi war a saytu organisation bi ñu ngi saytu organisation ñu war a def euh, euh, plan juridique bi mhm. këyit yi ñu ngi koy ñu ngi koy lijjanti bu ñu ñëwee réunion nag ñu teg lépp ci taal bi kenn ku nekk la nga indi ñu toog ci waxtaan ci ba ba mun a am terrain d'entente moo tax lu mu metti metti metti day defe ci ñun day mujjee yomb daal day mujjee yomb mais làmb ku ne xam na ni poos kese kese bu ko bëggee def dina metti mhm. est-ce que am ngeen ay partenaire par exemple yoo nga xamante ne ay sponsor leen di tuddee mhm. yu leen mën a gunge ci bis bi parce que làmb su fekkente ni billets yi kese lañ ko wekk dina metti wala yéen tailleur yi ci seen biir daf ci am ñoo xamante ay kilifa la ñu pare ne leen ko ñu war a mën a ñëw jàpp ci bis bi ba réussite am ci. Mm-hmm. ndax am ngeen ay kilifa yu ngeen ko tuddee wala ci biir ci biir organisation bi ci ngeen ko delloo ñu war a jël drapeau yi. Mhm. wala da ngeen ko jéggaani wala wala nan ngeen def. waaw <laughs> comme li ma wax sànq rek téer moom yaatu. Mhm. téer lépp nga ci biir mhm. moo tax ñun bi ñu xoolee ba ba xam ne war nañoo mën a def gala bi tamit dañ koo jël ñu tuddee ko bay sa yooyu tànk. dañ suñu biir. moo tax am nañ drapeau boo xam ne. seen biir ngeen tuddee président. waaw am xam ne drapeau euh, président Ndiaga Wade lañ ko tuddee. mooy ki jiite woon téer yi. waaw mooy président moo njëkk premier. xanaa kon da ngeen koy sargal dañ koy drapeau lañ ko tuddee dañ koy tuddee dañ koy tuddee drapeau peut en même temps dañ koy delloo njukkal. parce que kon séentu ngeen lu mu leen indi. non ñun séentu. comme yéen a koy sargal waaw. maanaam boo gisee ñu def noonu dafa doon maanaam li may wax sànq bay ci sa weewu tànk parce que booy booy liggéey dara da ko war commencer ci sa bopp soo ko commencé ci sa bopp ku ñëw dale ciy fekk si moo tax ñun suñu drapeau ñu suñu première édition drapeau gala de lutte boo xam ne ci président mandat euh, Modou Seck la nekk mhm. suñu premier euh, drapeau ñu tuddee ko moom euh, président Jagawad mhm. moom moo nekkoon premier président groupement des traits de la région de Thiès ci formule bi ñu nekk avant laay ngom di ko jiite moom moo moom moo mel ni kon même bu déwén bi nii waaj xam naa laay ngom ci lay bokk incha allah rabbi na préparé wu ak ñeneen ak ñeneen incha ah, allah bu ànd ak magam ànd ak magam ñu àndandoo ñëw mu doon ñaari drapeau lay doon déwén. mun na ne mais ren daal kii kii njagawaat la. ren daal njaga drapeau drapeau njagawaat lañu. kon lan la ñuy xaar ci njaga. Ah, moom li ñuy xaar ci moom moom daanaka mi ngi ci war mi ngi ci mi ngi mi ngi ci li ko war ñun bi ñu ko tuddee ku ñu làmb drapeau. Mhm. di nga financement moom moo ci ne financier dina ci am. ah mais mënu cee ñàkk nag mënu cee ñàkk nag mënu cee ñàkk financier mënu cee ñàkk mais nag xaaruñu dara ci moom loo xamante daf ñu koy apporter que dañoo comme ni ma ko waxee rek dañoo commencé bay ci sa weewu tànk mhm. kon euh, buñ ko wooyee tudde ko drapeau bi dañu xaaruñu ko moom dara ci moom parce que moom ci suñu biir la nekk te ñun xam nañ ko ku baax kan mooy Ndiaga Wade. waaw mais nag euh, war ngeen a xaar ci moom dara ndax fii réew mi toll. ñu dëkk topp ñu toll ci politique. dëgg la mënoon ngeen ko tuddee ji ab maire. wala ñi toll ci di campagne. ak a def kon suñ ko ko tuddee tamit bu ne xaaruñu ci moom dara am na lu ñuy xam duñu ñu ko exiger dara waaye mm. am na lu ñu koy xaar waaw bien sûr loolu sax dëgg la loolu dëgg la xam nga moom euh, gor su ne la rek mm. am na yoo xamante ne bu la ko tuddee moom sax moom jaga moom sant bi rek ma jaaxal waaye ñu moom waaw allah waaw nañ jël sant muy doon supérieur sa sant ba ñu jóge ci lii <laughs> mais comme ni ma ko waxee sànq ñun mm-hmm. comme ni ma ko waxee sànq ñun drapeau drapeau Ndiaga bi mhm. drapeau Ndiaga bi ñu ko tuddee mhm. boobu du jamonoy politiciens yi politique moo tam moo tolloon fii ndax euh, yaakaar naa lamb ji ci avant troisième vague bi mhm. avant troisième vague fekkoon ñu jàpp bi datu lamb lamb ji bi troisième moom moo taxoon ñu arrière ko ba tool fii kon avant investir élection municipale yi di am kon fekkoon na bu fekk waroon naa fekk ñu tëggoon lamb ji ba pare te boobu jàppoon na Ndiaga Wade lañ ko tuddee ba pare loolu tamit am na ci solo bu baax a baax d' accord jàppoon na ni Ndiaga Wade lañ koy tuddee. Mhm. avant nga xamante ni ci la vague quatre troisième vague bi doon dugg si fii ci Sénégal. Mhm. mu mel ni dafa mel ni ñun foofu sax la ñuy jaare mhm. daal di dem ci beneen pàcc bi nga xamante ni. ah ci la ñuy jubluwaat. muy deuxième partie émission bi. suñu dellusee ñu mën a dugg ci programme bi nga xamante ni mooy mbër yi war a bëre combat bi. mooy ñi ngeen ko tuddee. ak fan lañ koy defee. ah bu ko defee defe naa ni mooy doon deuxième partie émission bi. kon sama caméraman ngeen topp ma ñu dem. Euh, publicité doog a dellu si ci deuxième partie émission bi. mbokk yi salaamaaleykum ñu dellusiwaat ci seen émission bi nga xamante ni mooy wasaare làmb ci seen deuxième partie comme niñ ko waxee woon comme ñu am fi gan mu tudd Moustapha Sow nekk njiit ci li nga xamante ni mooy président d'organisation wu association kii bi nga xamante regroupement bi nga xamante ni mooy regroupement de tailleurs de la région de Thiès ñoom nag dañoo nekk ci bis bis boobu mooy ban mooy drapeau bi nga xamante ni moom la ñuy duppee seen président Ndiaga ah ngir duppee ko ko nag mu doon làmb mu war a am fan fii ci hippodrome wala fii nga xamante ni mooy complexe El yaat Yatma Diouf nekk fii ci Medina Fall kañ lay am le 28 novembre décembre lay am fii ci EPO euh, fii nga xamante ni mooy complexe El Hadji Yatma Diouf fii ci marché Ngelaw ñu gën koo xam ci terrain marché Ngelaw foofu lay amee ñenn ñooy organiser bis bi mooy regroupement des terres de la région de Thiès. kan moo jiitu ca bopp ba ci wàllu organisation muy Moustapha Mbeng kooku moo doon suñu gan tey dégg ngeen ci première parti bi nga xamante ni ci lañu ne wax na ci li tax ñu dugg ci làmb wax na li tax moo leen initié ba xamante ni ñuy organiser làmb wax na tamit ki nga xamante ni mooy président bi nga xamante ni moom la tuddee làmb ji kon suñu deuxième partie dañuy jublu ci moom rek kàddu mu jox ñu combat yi nga xamante ni moom lañ taxawal ak yenn yaakaar lañ am ci mbër yooyu ba tax ñu taxawal ko ak ban terrain lañ koy tëggee ak ñan lañ ci àndal ci ay sponsor ak yooyu kon Moustapha nuyu nañ la ci deuxième partie bi nga xamante ni mooy wasaare làmb ñu dugg ci li nga xamante ni mooy émission bi fay nañ la bu baax a baax a baax comme niñ ko waxee sànq rek ci suñu mm-hmm. njëbeen wax rek am nañ ci nag combat yu neex a neex neex yoo xamante ni yaakaar naa ne ceesuwaa yi. bu mhm. ko seetaan di nga di nga sawar di nga yàkkamtuwaat téeri tëggaat làmb. kan mooy bëri créé euh, kii Boy Thiès moo koy bëri ak Bouba Diakhao. loolu mooy grand combat mooy grand bi di drapeau Ndiaga Wade. Boy ci ñi ko xamul mu ngi nekk école de lutte bu mag boobu ñuy wax école de lutte Omar Dickou. waaw waaw ki nga xamante ni mooy Boy Bouba Diakhao. Mhm. mooy le prince de Thiali. Mhm. ñu gën koo xam ti Bouba Diakhao moom mooy duppee boppam Bouba Diakhao mu ma bokk ci école de lutte bu mag bi ñuy wax école de lutte Samba Diaw. ban moo ci topp. ñoom ñooy def premier combat bi. ñoom ñooy combat grand combat bi. ñoom ñooy def grand combat bi. kan ban combat ci topp. deuxième combat bi topp mooy yaakaaru guy sombeel ak fëgg bari. yaakaaru guy sombel mi ngi nekk dëggey mujj écrit mu sante wala bu ma neexee sax ma wax ni R100 mbooloo lay jóge ah, kii nga xamante ni nag mooy fugg bu metti moom moo nekk ci ban écrit eh, fugg bari fugg bari moo nekk Thiès mbooloo Thiès mbooloo Thiès mbooloo kon ñaar loolu tamit ci combat yi la bokk ban combat moo ci topp euh, mbaax moo ci topp ak euh, Boy Ndioufène Boy Ndioufène waaw mbaax ak Boy Ndioufène mbaax mi ngi nekk bëgg sa jur mhm. ñu gën koo xam ci Isma jara numéro 2 mhm. mooy daje ak kan Boy Ndioufène Boy Ndioufène moom itam defe naa ne moo ngi nekk dëggey mujj mhm. kon loolu mooy ñaar ñetti combat yi nga xam ni moo ci am ban moo ci topp. la lamp bu écrit R100 mbooloo. Mhm. ñoom ñoo day mooy daje bees ak Thiès mbooloo. kon làmp bu r mbooloo. Mhm. mooy daje ak bees bu euh, Thiès mbooloo. ban combat moo ci toppaat. jam euh, ceeri bu Serif Lo. Mhm. moom mooy daje ak jël euh, bu maquette. ah d'accord kooku mooy mbëru maquette maan yi. mooy Yelbin daje ak jamteeri jamteeri boobu moo dëkk Serif Lo. Mhm. moo nekk ci école de lutte bu mag boobu ñuy wax école de lutte Samba Diaw. Mhm. ñooy kon ñooy mooy yooyu ngeen tànn def ba tànn leen. waaw comme ni ma ko waxoon sànq rek. parce que ci biir mhm. regroupement bi am na ci ñoo xamante ni ay lambologue lañu. bi. te ñoom ñoo monté combat bi te ñoom dañoo bokk ci biir regroupement ci ak def ci la ñoom ñoo xool booy yi ba xàmmee leen ràññee leen ñu xool ñii ñu mën a bëri lañu te ku leen tëggal di nga di nga gis làmb ju neex ak combat bi mën bu neex a neex moo tax ñoo ñu jël leen daal leen fas yéene defal gala bu mag boo xamante ni de des télévisions de Thiès ci njiital président Mo Seck moo ko jiite dama gis ci biir combat yi ay xale yoo nga xamante ni euh, ñooñu xam naa ne pour seen kase war naa seer de ku ci mel ni Bouba Jaxaw ak Boy Thiès ñooñu pour ngeen décrocher leen est-ce que yomboon na. waaw yombul woon nag jafe woon na trop nag. Hmm. waaye ginnaaw am nañ ci ay sponsors yoo xam moom lañ ci àndal ak ñoo xamante ni dañoo ne ci làmb euh, Thiès bëgg làmb. ñu ci hmm. ànd ak ñoom kon yaakaar naa dina mën a yomb. ah kon am ngeen sponsor. waaw am nañu ay sponsor ah, ah, na a am bu fekkee ay téer am na ci ñi nga xam ne ñooy toog sax ñun solo la guñu ba léegi. ah incha allah daañu leen solal. kooku kay maa ko yooyu. ñëpp la ñuy solal. gisaguñ ñu solal. am na yi enveloppe surprise. ah yoo xam daa jëm si ci télé. foofu nag ak ci làmb ji enveloppe surprise. ñi nga xam ne ñoo njëkk a jënd billet ñëw. Hmm. foofu ñu defal leen surprise parce que téere xew xewle te ku xewle moom ku aaye wal sa muumi téere ñoo xewle. mais téere dafa mel ni c'est pas la première fois ñu tëgg làmb parce kii nga xamante ni mooy regroupement tailleur yi. Mhm. Ah, champion yi nga xamante ni ñoo feeñ ci dëkk bi ñu ci bari. Mhm. du ma wax ni ñoom ñoo leen njëkk tëgg waaye bokk nañ ci ñi leen njëkk a tëgg bu fekkee njëkk ñu leen a tëgg. waaw eh, ndax kon defe naa ne lii kon du gan ci tailleur. non non gan ci tailleur ndax kii di Matar Mbaye ambulance. tailleur yi Cees yi ñoo ko njëkk jox avance ñoo ko njëkk tëgg ci làmb. dëgg la kii di Modou Anta tailleur yi Cees yi bokk nañ ci ñi ko njëkk tëgg ndax digganteem ak Youssou Ndour ñoom ñoo ko tëgg fii ci Thiès. kon defe naa ni kon du gulet téer di tëgg làmb. maanaam kon da ngeen di ñëw daal delloo mbaat bi ca Ndaala. noonu lañ def nag. pour maanaam fekk ñi nga xamante ni liñ fi sampoon rek ngeen ñëw pour ànd koog ñoom. incha a xam. Mhm. Eh, mhm. euh, Incas. Mhm. muy professeur Abdou nga xam moo ko jiite. professeur bu mag boobu nga xamante ku mu jàngal nga xam mhm. moom moo ko jiite moom tam ci sponsor yi la bokk mhm. bokk na ci ay defaal jarabi couture mhm. bokk tamit ci sponsor yi la bokk te boobu ñooñu ma lim ñëpp nag ay téyër lañ yoo xamante ni dañoo ci biir Sénégal di servir euh, yi Thièsuwaay yi ba liggéey fi lu am solo ci biir Thiès ci kon ñoom seen liggéey yamul ci làmb parce maa ngi gis site bi nga xamante mooy RTT TV ñoom ñoo ko taxawal. Eh, mu doon waa mu doon tele boo nga xamante ne fi tool bokk na ci tele yi gën a mag ci biir dëkk bi. kon mu mel ni seen xalaat yéen ci développement wu Thiès la bokk mais nekkul du làmb rek a leen tax a jóg quoi. waaw xam nga RTT TV sax ci sponsor yi la bokk. Ah, ci sponsor yi sponsor mhm. xam nga bu nee téyër moom da nga def téyër ci machine rek la mënee mhm. mais téyër bu dem ba wut seen site télé mhm. mu doon télé artisan yi kon téyër ñu ngi def euh, facteur de développement boo xamante dañuy ñu ngi ñu ay emploi parce que ñu ngi euh, regroupement bi créé kii euh, télé en même temps ñi ngi ñi ngi yokk emploi ci réew mi ñun ci domaine boobu lañu nekk moom moo tax tamit ñu moom moo ñu may opportunité ñu mën a tëgg làmb parce que loolu lépp ci facteur de la bokk Uh-huh. mais télé artisan yi boo nga ko si tudd kon mun naa ne artistes yëpp ci artisan yëpp ci lañ bokk. waaw waaw et est ce que artisan yooyu ñëw nañ ñoom it pour participer ci wàllu sponsor bi ñëw ci wàllu làmb ji est ce que ñoom ñëpp impliqué ngeen leen ci affaire bi. waaw ñoom ñëpp parce que warut a doon ay tey rek ah. déedéet ñoom ñoom ñëpp impliqué leen ci tey ci parce que bu nee artisan rek ñëpp a ci bokk artisan du téye du métier téye dong de. Mhm. artisan rek képp koo xam métier ma nga nekk rek métier kuy liggéey métier rek artisan nga te ñoom ñëpp dañ leen dañ leen a woo ci ci bis bi te ñoom te ñoom ñoo doon dugal nañ seen loxo ci bis bi te ñu ngi ciy jàpp jàpp bis boobu fan lay amee. mi ngi amee complexe Medina Fall. ñu gën koo xam ci complexe Yatma Diouf. waaw moom moo nekk wetu terrain terrain marché ngelaw. Mhm. foofu la foofu la ñuy defee journée bi. Uh-huh. muy tombee ci ban bis. le 28 le 28 euh, novembre lay doon. décembre euh, novembre bi le 28 novembre bi ñu jëm yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ci lay doon mhm. incha allah rabi. Mhm. ci panel yi kan ak kan moo ci wala benn euh, président Ndiaga rek moom la wala ñeenti combat yëpp yi ci des am nañu yeneen i panel yu nga leen tuddee wala comme ni nga ko tuddee sànq. intercontinental de négoce boobu dañuy ñëw gunge leen ci bis bi wala am na yeneen drapeau yeneen ñu ngi ci tudde wala ni mu demee ci seen biir noonu. xam nga bu ñu jëlee xam nga bu ñu jëlee drapeau daal ni jagawaat Ndiaga Wade. Mhm. moom doy na pare. maanaam kon benn parrain rek la drapeau Ndiaga Wade day na parrain bi ci des tamit euh, sponsor yi ñu yor ñoom dañoo sponsor dañ ci ji yëpp mhm. kon euh, boo xoolee ci biir nag am na ci ñoo xamante ni nag ay nit ñoo xamante ni ay ci téer la ne ci biir làmb ci biir euh, regroupement bi regroupement def lu am solo loo xamante ni lu am njëriñ la mhm. ci ci ci ci ci journée yi mhm. ku mel ni ku ñu wax Moutala Touré moom bi mu ñëwee xool na initiative xool na ne mun mun eh, ci

ne lan la jël. kooku moom dañ koy bàyyee rek moom li muy def moom moom kenn du ko wax surprise lay doon. mooy surprise bi ma dégg nga di ma ko dikk est hmm. euh, bi rek est-ce que ci wàllu organisation comme fi ngeen war a jaar ci wàllu préfet fi ngeen war a jaar ci wàllu GMI fi ngeen war a dem ci pour sapeur pompier ak loolu ci wàllu lépp nga xam ci wàllu organisation la ne. Mhm. maanaam am nga ku la jege ku gën a miin loolu pour man la informé pour jàpp wala yi matuwaay yëpp mat na. xam nga regroupement des terres de la région de Thiès. mooy yaatu daal su ma su ma yaatu su ma yeboon ne moom sax su ma yeboon ne am na ci ñoo xam dañoo affilié ci CNG de ñoom affiliation boobu ñoom ci affiliation ci seen déedéet moom moo tax moo ñuy permettre lépp loo xamante làmb war na ko am lépp ko fi ñu ko war a jaarale ba am këyit yëpp yoo xamante ni dañ ko administration da ko war am ci këyit kat administration kuy tëgg làmb war na ko am ñu doxale ko noonu. Mhm. kon wàllu organisation boobu ki nga xamante ni mooy Mamadou Seck bàyyiwu leen fi ngeen war a jaar lim ci war a def lépp def na ko. lim ci war a def yëpp lim ci war a def ñoo xam ñu ngi ci biir ñoo xam du ñu. kon bu fekkente ni am nga message booy lancé ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci regroupement bi ak ñi nga xamante ne ñoo seq bis bi. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne yaa ñoom yéen bokk organisation bi ban message lay doon pour ak ban ban kàddu lay doon. waaw message bi may mooy comme yëfi téer la te ñun téer euh, dañoo nekk mm-hmm. maa ngi lancé message appel ñoo xam ne képp kuy nas puso rek yaa ngi ci biir làmb ji. képp koo xam ne da ngay rek ñu ngi lay woo ci biir làmb ji le 28 novembre fee ci complexe Medina Fall képp koo xamante ne téer nga am nañu boole téer yeeg suñuy soxna yeeg. ñi nga xamante ne mooy suñu clients yeeg ñëpp ñu leen di lancé appel ñu ñëw ci jour bu bu jour ba jàppale téer ndax téer yi ku leen jàppale rek nga sa bopp wax dëgg yàlla ndax téer moom euh, munu ta ñàkk ci ci dëkk te munu ta ñàkk sax ci réew laay wax hmm. wax dëgg fi yàlla kon ku leen jàppale rek nga sa bopp kon ñu ngi lancé appel ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi ci regroupement des téer de la région de rek ñu leen lancé pour nga ñoo jàpp ci bis ba tey euh, bu téer yi Thiès yi dajaloo di tëgg làmb am tele bu mag ci hmm. seen biir nga xam ne jëggaaniwuñu dara Mm-hmm. yow boo amoon message booy lancé ci télé boobu nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp mm-hmm. muy télé boo xam ne télé artisan yi ban message lay doon euh, moom lay def sax léegi suñu kër boo demee suñu télé yi dama nga xool fi atelier yi léegi atelier yëpp boo demee demee RTT TV ngay fekk fekk ñu damaa jaar ci mayga bi nekk fii ci passage bi. di ndekki damaa dugg rek di xewlu ñu daan ne ma eh yow seen télé baa ngi daal di ma koy jàppal. ma xam ni man ndekete man ñun yaakaar ni ñun suñu télé bi fii la yem ndekete wër na àdduna agul foofu foofu maa la wax yow boo ma nee nii neex na ma trop nag wax dëgg ñi nga xamante ñoom ñoo ko jiite mooy directeur hmm. télé bi man est-ce bokkul ci combat surprise yi non combat surprise yi may dégg da ngeen a taxawal ay mbër wala da ngeen ci biir tailleur yi ñoo ko war a bëri. surprise yëpp tailleur ay mbër koy koy ji ma bëgg a wax. surprise yëpp da ngeen a ut yoo xam ne ay tailleur yi ñëw. xam nga yi ay combat spécial ñi ay mbërëkat. bëree ay mbër ay mbër mbërëntaan la koy mbëre mu neex. waaw balaa ñoo tàmbali dafa am ay combat surprise. est-ce que moom seen président directeur programme bi kon que bokku ci ah loolu dañu egseegul ci ñu ah boo demee suñu xaarim ci la bokk de ah mu mel ni kon waxtu yi yi nga xam ne moom la ñu cërale woon ci waxtu mi ngi waaj a jeex uh-huh. xanaa kàddu yi nga xamante ne rek mooy doon kaddu yi woote ak kaddu yi soññee uh-huh. surtout ñi nga xam ne ñoom nga bokkal organisation bi ci nan ngeen ci war a taxawee ci bis ba ak ban heure lañ war a ñëw wala avant bis ba fan ngeen ci war a taxawee def naa ni nga ko jotale pour ñoom ñëpp ñu mën gën a waaj daal xam nga yàlla dafa dogal ne suñu président organisation mhm. muy Baye Thioro Mboup mhm. moom la kon kon kon kon jour taxawaay ba ak bépp koo xamante organisateur nga ci biir organisation rek xam nga lay lay xaar di président Laye Ngom mhm. président sortant Laye Ngom mu ñëw jàpp nuyu ci bis bi hmm. di woo président Seck di woo président Bafou Mbeng hmm. Lebu Ndoy complexe Lebu Ndoy Inkaas Abdou Wade hmm. euh, Ibrahima Mané ñoom ñëpp nag ñu leen di ak tous les euh, regroupements des terres de de Thiès ñu ngi leen di woo. région de Thiès département yeeg Mbour ak Tivaouane ak ñëpp ñu ngi leen ñëpp ci lañ bokk ñëpp ci lañ woo. kon laam jooju du tudd. incha allah rabi du tudd ak 11 mars yi nekk ci Thiès président yi ak seen waa délégation ak bu fàtte woon jigéen ñi. Mhm. jigéen ñi ñoom dañu dinañ ñëw ak seen i hôtesse. ak seen i mhm. salancan ak seen i moteur ak boo nga xam bu ñëwee rek. te lamb ja lay am jigéen ñi. léeg-léeg la ay musóor 45 mètres lañ leen wutloo pour ñëw ci làmb ji incha allah koo tax da kay fi mu toll nii téye reex xewle ku yéex doom place kàddu gu mujj waaw man kay kàddu gu yàlla na bi nag yàlla yokk ko doon télé yoo xamante ñi dégg ci àdduna bi yëpp yàlla leen raw te yàlla mun na ko yàlla def mbokk kon yéen a ko déggandoo mu nekkoon sunu émission bi nga xamante ni mooy wasaare làmb doon dox ci suñu diggante ak ki nga xamante ni mooy président organisation bi nga xamante ni mooy regroupement des tailleurs de la région de Thiès. nga xam ni ci la tele bi nga xamante ni moom la ñu koy defee tey jii soqeekoo ñu toogoon tey doon seq ak moom waxtaan ci bis bi nga xamante ni moom la ñu jublu muy le 28 euh, novembre. di amee fii nga xamante ni mooy complexe ma Diouf di ame fii ci marché Ngelaw bis boobu nag euh, ñu ngi ko duppee euh, seen président bi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàgg na fi. ba jóge fi te mosu fee def lenn lu ñaaw muy alaaj njaga mu ci invité nag ñi nga xamante ni moo doon le président sortant di Ablaye Ngom ak ki nga xamante ni moom la fi yàlla teg tey ci bopp regroupement bi muy Mamadou sekk kon mu mel ni ah, loolu moo doonoon émission wasaare lamb ñu ànd àndoon koog télé bu mag bii di RTT TV ñu leen di jox rendez-vous le 28 novembre fii nga xamante ni mooy ci eh, eh, télé te terrain bi nga xamante ni mooy terrain marché ngelaw ñu gën koo xam ci eh, complexe Yatma Diouf kon sama caméraman ñu ànd rek di jox rendez-vous nit ñëpp le 28 novembre fii nga xamante ni mooy complexe El Hadj Atma Diouf jërë ngeen jëf.